Fatick ñoom ñaar Sa Thiès boo ñaar na ko na ko wala. na su na ngi dóor ci suuf. attention Sa Thiès ñaar ñoom ñaar xeex ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès boo daan na ñu nekk ci gara combat bi diggante Baba Maal su ak ki nga xam mooy Boy Sine bu Rock Maal boo ko ki nga xam ne ki gën na Boy Sine na Boy Sine na daan na combat gaaw Boy Sine na daan na Boy Sine bu école na daan na combat Eh, Modou Sine Beko Rock rek war ko ansi yëpp ma ma ko pare wu metti xama nga entraîné ko xam naa ne dàquma xeex wallahi lazim mais lamb ak li mu laaj daam fu ma jugee juum wartuma juum waaw nekkatuma ngaaga si làmb xam nga mais di sant ñëpp instant bii nii di ngeen bi mënu ma wax yaakaar ma géré mais à suivre. waa Leewtoo dinañ ñëw seet si la di nga ñu recevoir. fi ma jëm xam nañ ko fi ma jëm xam nañ ko. làmb la. yaa Tidiane làmb la. làmb la pare naa pour moom làmb la pare naa pour ñëpp. ak kan. di sant den sama mag Ndeye Ndiaye. limal limal waa Leewtoo ñu ngi lay déglu.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 ñoom ñaar xeex noonu attention KO